ni nga ko waxee noonu lañ ko saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi ci biir réew mi euh, tey am nañ fi nag euh, di ay newspaper moom ñëwaat na am nañ fi di standard am fi di point newspaper Foroyaa ci yéenekaay yi biti réew yi tamit am nañ fi Les Échos am fi Walf Quotidien ak Sabal Net waaye bay suñu yéenekaay bi tey di ay newspaper moom it xëy na am solo ci xar-xaram gi bokk na euh, nag ci lawmakers yi ñëw na tamit ci président Ruto euh, wax na ci itam hujaa ji su defee rek ñu xool xët wu njëkk buñ ci rek àndal mu ngi ñuy xamal daal ne tey jile euh, ca ngombalaan nga muy ca National Assembly bi njiiti réew mi ci li nga xam ne mooy kàddu yi mu yëkkati woon ci tolluwaay réew mi muy State of the Nation Address tey ji dal jàmbur yi muy député yi dinañ ko rek càmbar gën koo saytu xool ko segg ko muy scrutinize CNRS ngir xool rek kàddu yi mu yëkkati ak ci ponk yi mu wax su ko defee nag ñu door li nga xam ne rek mooy yëy yàbb yi maanaam dibéet bi ñu wax ci leneen ay newspaper ba tey xëy daal di ñuy xibaar ne euh, lu ëpp euh, junni ak ñetti téeméeri hujaaj euh, ci atum ren jile muy rek ci aj aj bi ñu génn ni le ñoo rek daal di faatu loolu la ñuy daal di xamal ku ñu ko xamal nag mooy Saudi health minister maanaam rek ki nga xam ne rek mooy jëwriñal paj ma ca réewum Saudi Arabia ñu tëj euh, di ay newspaper ubbi di standard newspaper moom itam mu xëy bind lu am solo euh, ci xar-xaram bi ñëw na nag ci yu bëree bëri waaye nag ñun dañ ci compos lëf baaxee ko ñu ñuy seetaan mu dikk ci euh, pura moom nag daal dina woo ñi nga xam ne rek ñoo di nawek ñu yor wàllum ndox ak mbëj maanaam électricité ci réew mi ci lu jëm rek ci xuy xamaj gu amul àpp gi ngir ñu mën leen a explain wax leen lu ko waral ndax nag jàpp nañ ko daal ci Greater Banjul area bi ba ci West Coast daal ci fan yile nemmeeku nañ ci daal ab xuy xamaj gu jéggi dayoo daal moo tax ñu woo leen ngir ñu waxtaan xool lan moo waral loolu yi euh, moo waraloon daal ñu woolu ñi nga xam ne rek ñoo di euh, nawek ñu wax ci leneen imaam euh, yi ba tey noppiwul nag di wax ci lu jëm ci wàllum FGM moom nag daal dina ñaax wala sax xelal njiiti réew mi Adama Barrow ngir ñi nga xam ne daal ñooy naam sami maanaam jàmburam yi bu ñu rek daal di taal li nga xam ne daal moo di réew mi loolu daal daal di xam ne ndax nag gis na ni ci wàllum FGM daal baan boobee de bu fekkee dañ ko saxal loolu yi des na jur li nga xam ne daal moo di fitna ci réew mi ñu wax ci leneen ba tey sax ci wàllu FGM Imam Fati ba mu àddoo ci loolu di artu ñu dikkaat ci njiiti réew mi moom daal dina xamle daal ne government bi pas-pas gi mu am maanaam da comité ngir euh, baan bi nga xam ne baan nañ ko muy tere bu ñuy teral xarafal jigéen ci réew mi loolu daal duñ ci jukk te dina dinañ ko fexe gën ko rek daal di dëgëral Mama kande moom mi ngi nii ci xarxanamu yéenekaay bi di standard daal dina xam daal Eh, ki nga xam ne rek moo di Ibrahima Tabaro maanaam di wax muy eh, People's Alliance Party moom daal loolu la kii di kii di Mama Kandeh njiital GDC moom it wax ne lu jëm ci bil bi la daal bu fekkee delluwuñ ci ginnaaw mooy dakkal wala jeexal nguuru ki nga xam ne eh, moo di Adama Baro moom daal loolu la ko di ne ñu tëj ko sax point point moom it xëy lu am solo ci xarxanam gi xët yu am solo la nyundan ñun dañ ci ëñ rek yenn ci xët yi rek baaxee ko ñuy na rek ci Gambia daal dinañu xam ne ki nga xam ne moo ñu mbay mi muy agric moom daal lu mu xam le mooy euh, Gambia seen taget muy seen jamu euh, ci lu jëm ci ñu moom suñu bopp ci wàllu dund muy euh, rice muy self sufficiency si dal 2020 tati la maanaam ñaari junni ak fanweer lañ ko rek dal di target ngir bu ñu yeggee foofu ñu gis ne dinañ mënal suñu bopp ci wàllum dund jëmee ci wàllum Chile ñu wax ci leneen ci ñi nga wal ne ñoom leen dénk wàllu drogue ci réew mi muy Sénébar ñoom daal jàpp nañu lu toll ci ñaar fukki doomu Nigeria ay Euh, muy ay scammers ñooñu daal teg nañu leen loxo euh, ñu wax ca leneen foofee nag ca ñaani jee ci ab dëkk bu ñuy wax pale euh, Palele foofee yi daal ñett nit jot nañu leen jàpp ci jafe-jafe wala sax ci mbirum coowal suuf loolu yi daal ba am na ku ñu ci rax daal di cor ba gaañ ko loolu yi ba mu ñoom daal ñu ngi mujjee fa nga xam ne daal mooy ca Njaaw police station dëkk Mamadou Mohamed Niang ñu wax ci leneen tëj loolu ubbi Foria Foria moom it xëy na bindu am solo ci ñu bu ci njëkk bokk na ki nga xam ne rek dañ ko so dañ sotti woon bal ci kaw mu dookoon rek ab driver euh, ci Casamance foofe euh, moom nag ba ñu ko yóbbee woon nag ca barabu foojukaay ba daal daal dinañu xam ne ne euh, bàyyi nañ ko maanaam discharge nañ ko ca fa ñu ko rek euh, daal di tëraloon ginnaaw ba ñu soqee ci kawam te ñu wax ne euh, soldaaru Sénégal yi ñoo soqe woon ci kawam ñu wax ci leneen ak ministre bi ba tey muy rek jëwriñ ju ñu dénk wàllu mbay mi daal dina rek xibaar maanaam update ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi ci lu rek jëm ci nguur gi seen rek programme yi ci wàllum agric ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñeent moom daal dina rek xamal fan la agric taxaw ngir réew mi euh, li la su ko defee rek ñu jéggi euh, dem nag ca Sénégal euh, dem ci yéenekaay yooyu Les Échos moom it xëy na bindu lu am solo ci xar-xanam mi nga foofee ci réewum Sénégal dañuy xamal daal ne Sonko dafa rek daal di artu teg ci itam sax xupp maanaam menace ñi nga xam ne ñoo di jàmbur yi noonu de ko daal di rek xamle ci lu jëm ci dem gi mu war a dem daal di wuyu si jàkkaarloog ñoom def li nga xam ne rek moo di déclaration politique général foofee ca Sénégal ñu waxaat ci leneen fu Quotidien moom it dikkalaat ñu sax ci Ousmane Sonko euh, di euh, ilimaanu jëwriñ ñi sa Sénégal maanaam prime ministre euh, wala daal dina xam ne lu jëm ci déclaration de politique générale Sonko dafa rek daal di dumóoyu ñi nga xam ne daal mooy assemblée nationale ba muy national assembly bi waaye daal kii di nga xam ne rek mooy Abdou Mbow bennoo ñoom daal ñi ngi taxaw fu dëgër pare nag ngir mën a xeex ñu ngi teg seen i ngàndaay di xam ne daal ne bu ñu moytuwul dinañu woote ab li nga xam ne mooy motion de censure boo xam ne moom Ousmane Sonko sax dañ koy tëbal ak nguuram gi daal di ko fay rek jëlee sama benn yéenikaay bi kii di Moussa indil ko dafa